ku ci yàlla may milliard te la million maa ngi lay interpellé waaw Touba bu mu taxawee temb Touba bu murid yi taxawee temb day dañuy dimbali état bi ci Touba ndax murid yi dañoo war a taxaw ami dund ba nga xamante ni bi état bu ñàkkee xaalis mu génne di jot xaalis looloo war a dañoo war a tubaab yi dañ daan am problème mu finance ku tëdd kii économie leen. loolu la loolu bëriwul si. waaye du caagee ne li war dëkk yëpp rek moo war état bi ci Touba rek ñu bàyyee ko état bi murid yi loolu da leen a warul ndax état bi ñi ko ngan bu ñu amee yéen i jéem yéen i jiitam duñ ko man ndax c'est le système système bi moo tax système colonial moo fi nekk ba moo tax li ñuy fii def ak gis bu ko kenn xeet waaye tey ñu leen di soññ kon dafay jar di fàttali ak a fàttaliwaat du caagee ne Serigne Mountakha moo leen war a wax yooyu wala Cheikh Bass wala yu demee noonu ñu leen koy bàyyee déedéet Thierno ca démb daawul tàggu kenn ci lenn Serigne Touba daaw ca xaar kenn itam loolu ñun la war ay sang la ñu. ñu ñooy dongo yi ku tedd ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ba ñu koy jaay ab téere te booba xaalis manque yi Cerno borom màggal ji def na kon te nga maa jaay ndax nga am njëgu téere bi ki sëriñam bëggu téere ku tedd ki ne ko laa gën a bëgg yow laa gën a soxla ci téere wallahi sahih wallahi sahih wallahi laa gën a bëgg ci téere bi yow Thierno yow laa gën a bëgg ci téere bi jaay na ndax nga am njëgu téere bi téere bi nga bëgg ah, ko xëy xëyee bu waree ñëw rek waaye nag dafay loo raar sa sëriñ bëgg na téer ki wax loolu kan la kan la bu mu ñaar bàyyi ko ci sa loxo ñu war sa sëriñ bëggub téere xaalis jafe nga ne ko jaay ma ndax nga am njëgu téere bi nga bëgg ah ndax loolu li ngeen ko dégg bari ma ndax li ngeen ko dégg bari loolu moo tax su ma toogee fii di wax ca fee du sob du bari wax wàcceeku la ci man loolu moo tax ma bëgg murid yi surtout diaspora bu ñu defee ne Touba l'état sénégalais et le régime actuel ñoo war a defar Touba buñ def loolu ci suñuy bopp dañu ciy dimbali dañu ciy dimbali ndax ay tubaab yu ñëw lañu moo tax même bu ci jégul nit du tee nga doon tubaab bu ñuul du ci couleur bi ci mentalité yi la ak tubaab du ci couleur bi du ci ñuul mbaa xonq déedéet li ci tubaab yi bàyyi seen doxalin seen constitution waaw seen façon de faire seen fason de gouverner il faut ñu xam loolu ñun murid léegi nag ñi may interpeller mooy ñi nga xamante ne bii Serigne Touba jox na leen lu leen ëpp dépense bi la ëpp dépense la ca des ku ci am fukki million normalement su ma nee benn ba Touba la war a jëm xanaa ñii gën ñii génn loo asaka la ñuy wax waaye ku am fukk wax dëgg yàlla boo gëree juróom yi mën a juróom yee war naa mën a dem ci liggéey Serigne Touba looloo waral bamba fépp nag bamba fépp dafa war a am fondation projet Al Mountakha bii ngeen di dégg ñaari projet la ciseau la bu njëkk bi ay toole àllarba la dinañ ci wut juróom-benn fukk ak juróom-benn yëpp ñu def ko aareen bi ñu tuddee gerte arachide juróom-benn fukki tool ak juróom-benn à travers le pays bu ci jiitu mooy bi Serigne Mountakha di joxe tiit. fukki hectare lay doon ba cee topp bii sëñ Moustapha Xarsa di joxe ci Madina te mu doon tool bi jumaa ji moo cee topp yeneen yi cee topp ak yi cee toppaat Cheikh Abdou mi fi jógee dégg baari nee na dina joxe et cetera waaw soxna may mënatu et cetera dañuy jël tooli kilifa yi mu doon ñaan ñu soccee teg nag tool yi tànn bi lii kat mooy. ñaari phase la phase bu njëkk bi mooy ak dañ ko tuddee al bustaanul muridiya les chambres du mouridisme dañ ko tuddee léegi nag loolu xilaafa yi moo ko waral mu am ñaareelu projet boo xam ne boobu projet moo tudd projet al muntaka projet al muntaka al muntaka nag ñu jàng tubaab dañ koy firé waaye man nag may jël beneen ba man léegi laay jël ndax itam nag jibril saa yu ñëwee ak tuuram koy wooyee yonent bi bu ñëwee ni ko almustafa beneen bi bu ñëwee ni ko almujtaba beneen bi bu bu ñëwee ni ko albaraq lit et cetera waaye bu ci nekk nag na koy firee da nga koy mën a firee morom ja mi na rek boo ñëwoon ci gétt maa ngi ñëw ci àll bi ci ay kéwal maa ngi dem ci ay jigéen ay abaab yi waaw xam nga am na jigéen ñi maa ngi leen am na yu góor yi yu jigéen waaye boo nee abaab yi rek yëpp ñu ci biir borom pàcc bi Seydina Ousmane da daan wax ne yomal xiyaam Serigne Touba na mu bàyyi woon murid bi Thierno noonu la koy bàyyi murid xam nga yomal xiyaam ñi nga xam ne dañuy bari dañu leen di tànn. par kuréel dañoo te am kenn doomu Serigne Touba yi lay njëkk a ràmbaloo si Modou Moustapha lay njëkk a woo mu ràmbaloo foofu duñ ko sori foofu la ñu koy yemale ci lañ ko naan ket tet wallaahi ci lañ ko naan ket tet oh oh bu ñëpp tiitee ba ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne ana xaadimu rasul alayhi salaatu wasalaam laa la gën ji mbindeef ki nu am képp ay jóg taxaw yonent yëpp a nga fa de yonent yëpp a nga fa bu ñëpp tiitee jataay ba yàgg yonent yëpp daw rek ci Mouhamed alayhi salaatu wa salaam Mouhamed moom day daw ñëw ci moom rafahani iqdaamu xayri rusuli rafan bihi waafaqtu kulla mursali دمدما محب رسوله إن بقلبي محباته بقلبي ورسوله تبارك الله bu ko defee xadis sunu de judduwul ci xadis waxat jot ñu tàmbali wax moo mënu waxukaay mu yabal ki muy yabal mu koy indil li mu koy indil ci li may wax ma koy jàll du ma ci dara jubluma bëgg ñu xam ni réew mi ñu xam ni lu baax lu ne boo koy wut ci Serigne la gën a gaawee dëgg la donte yoon yi bari yoon bari yoon yi bari boo jëloon Touba tey wax dëgg yàlla route nationale moo gën a gaaw moo gën a gaaw jóge fii dem ba Saam Yabal nga wiiri dem ba Belel soo dem Touba route nationale baa ngi tawa ilaahi boo da sëy bi jeex ba li baa nga xëy bu sax yi baax des ci bari tafsiran ku tedd ki moom lu nekk long terme la koy indil moyen terme lu nekk moyen terme mu indil la ko court terme da la koy taxañ te loolu lu yomb a am na turi rawxaan yoo xamante ne bii am na turi rawxaan yoo xam ne bu génnee ci buntu kër gi boo ko waxee rek daal di dem un ni ci Touba man nga koy def 30 minutes waaw Moustapha Diouf mii am na maam yoo xam ne bu jullee timis ba noppi bu bëggee dem Tamba bu la nekk tapé ma rek bu gëmee bu waxee li wax rek bu xoolee nekk Tamba ah ku gëm loolu kay mën a gëm li may wax. ku gëm loolu mën a gëm li may wax mbir yi dafa gën a gaawee ci ku tedd ki moo tax ma ne Touba d'abord gis nga état Sénégal projet bu ñu yëkkati. ak fu fu mu mën moo xam jamono bi moo xam fu ne nañu ni bala ñoo def lii nañ def lii Touba ba pare ñu xool ñu xool léegi nag comme ñoom du ñu man loolu ndax système bi nu murid yi am fur la doon benn dànk ci Bàmba fépp waaw di xoolandoo di gisandoo di waxandoo di doxandoo waaw di jëfandoo ñu def ko tuuti xool bu état nga am problème muy di jóg réglé ci domaine yëpp problème politique problème finance problème social problème yëpp ci murid bi la gën a gaaw donc dafa nuroo laaj ci tey ci sama kanam mu demee noonu rek waaye noonu la tëddee bu nuroo laaj ci tey ci sama kanam mu demee noonu waaye noonu la tëddee ndax ñuy tëral te nekk ca kaw noonu lañ ko tëral loolu moo tax ñu bëgg murit bu ko déggoon ci toole àllarba yi nga bañ a sax benn hectare ak foo mën a nekk ci Sénégal ndax projet bi du pour Modou Karane pour Diwane pour xilaafa gi la pour al mouridiyeen du nekk moo tax ñuy du nekk loolu mooy li tax ma ni de presse lay doon dëddul am question ak réponse du ko am ndax maa ko dul nangu lu ci doon ay code nag bu ma jógee ba fii ku ko sam xel mënut a décoder bu décoder jotee ma décoder